Euh, gannaaw ba ñu leen jaajëfalee rek mbokk yi internet yi ñuy topp mën nañ ne nag jéye ji ba tey mi ngi continuer di des ci réew mii di Sénégal gannaaw ay jafe-jafe yoo xam ne rek euh, dund nañ ko mu nekk loo xam ne rek lu doy waar a doy waar la te mën nañ ne loxob état euh, du ci génn ba tey ndaxte ñoom ñooy ndey ji Cheikh ñoo waroon a tëddee njaaxanaay ci lu bëree bari ba ñu seetloo que ne nag mbir mi ni mel amul tax na nag sénégalais yu bëree bari jamono bi ñu toll nii daal dinañuy gedd réew mi di Sénégal tax na ay doomi aadama jël lii di mbëkk mi mën nañu barsa wala barsàq gi nga xam ne daal dinañ koy jota nemmeeku waat lan moo ko waral ndaxte koo xam ne dem nga ba amatoo yaakaar ci sam réew ay droit la nga daal di def li nga xam ne rek sam xel loolu la la may moo tax ñu si bare bari kenn du leen yedd nekkat seen xel ak seen xalaat loolu kase la leen jox ba tax ki nga xam ne rek moom moo yor part de responsabilité bi jamono bi ñu toll nii di état bu Sénégal gi nga xam ne rek jamono bii waroon naa fekk Sénégal bokk ci pays yi nga xam ne ñoom ñoo gën a développé malheureusement mbir mi ni mel amul te li ko waral ñëpp xam nañ ne benn poñ la di xëccoo ci wàllu nguur politique ak ya ca aju tax jamono bi ñu toll nii lii nga xam ne moom mooy suñu démocratie daal di nërmeelu suñu doomi réew soxlaatuñ dara ci biir réew mi du liggéey du leneen. donte dontale sax mën nañ ne ñaka fay jéem a def ak kas néew lañ leen say ñamal nekk loo xam ne rek mënta faj seenu mar te nag kenn gis fukk di te dërëm jàpp nañ que ni kat bu ñu demee génn ci biir réew mi dinañ gis leneen loo xam ne rek dina mën a daal di faj seenu mar moom mii di président de la république gannaaw ba mu defee ay bêtises yoo xam ne rek yu baree bari te takku la fii ci biir réew mi mën nañ ne lam bu waxul dëgg wax fen te loolee moom mooy ñu baree bari la ñu nemmiku kënekat moom moo salfaañi àq ak yelleefu doomu aadama yi ba tax kenn buggatul sam réew réew mii di Sénégal nekk ci ay jafe-jafe yoo xam ne rek mi ngi koy dund li ko waral di crise boo xam ne rek ñi ñu ko teg du ñenn ñu dul ñoo xam ne dañuy xëccoo nguur te nguur yàlla koy joxe wante kat ba la koy jox pour nga not saw askan taxul woon am na ñu la fi jiitu woon gis nañ gannaaw ba ñu luubalee na leen yàlla def subhanallah loolee ñaanuñu yàlla mu nattoo ko askanu sunu gaal ndaxte kat réewum teraanga dëkkub teraanga lañu ko xamee teraanga jooje xëy jamono bi ñu toll nii mel ne dañoo daal di ñàkk li nga xam ne rek moom moo ñu ko mayoon ci mbir mi ni mel ñu war a nag jëm ci ay élection moom mii di président xañ ñu ko ak ak yelleef ga ba tey mën nañu moom moo daal di dellu kon nag lan moo war ci ñun ñi nga xam ne ñooy doomu réew mi rawatina nag bakkan yi nga xam ne ñu ngi rot foofule ca diwaanu ndar géej lu mat ñaar fukk ak ñaari doomi aadama génn ci àdduna ak ñi nga xam ne gisaguñ leen cay mi réew